ay ca jërë ngeen jëf mbokk internet ñuy déglu à travers euh, partout dans le monde euh, rawatina yéen ñii abonné chaîne bu mag bi ñuy wax Galsen People te nag dañoo ñëw seet si koo xamante ne mën naa ne kenn dootu ko présenté si même réew mi ñu koy wax euh, soxna Abibatou gay nekk voyante bu mag a mag a mag koo xamante ne mën naa ne résultat mi ñëpp ñu ngi koy dégg à travers partout dans le monde te nag moom lañu indi nag war a waxtaanee ay mbir yu am solo war a waxtaanee avenir réew mi ak président Ousmane Sonko concert de casserole bi nga xamante ne mi ngi koy def. wala def na ko ba pare euh, dina ci indi ay leer yu doy war nee nak amna na lu doy war lo xamantene ne ndar na xew fi ci réew mi xamna rek bala ñoo dugg ci programme dang koy daldi bay mu nuyu suñu mbokk internet yu gis lan soxna yu bat nuyu nañ la. assalamu alaykum wa assalamu alaykum wa rahmatullah musa wa People ma ngi leen di nuyu. Mhm. di leen jox seen way di amante contentement lool machallah allah si ñëwaat bi ngeen fi ñëwaat machallah mhm. di nuyu samay ñaari waajur bu góor bu jigéen di nuyu sama borom kër. Mhm. di nuyu kilifa diine di nuyu kilifa aaday di nuyu soppey fansis képp koo xam ne daal yaa ngi béggee soxna Abibatu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah hmm, macha allah hmm. euh, macha allah soxna Abibatu Gaye kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax hmm. te nag bëgg naa ñëw nag ñu tàmbale ko si wàllum actualité euh, ku la xam nag xam ni porte-voix nga lépp loo xamante dañ koy wax sénégalais dañ lay déglu bu baax a baax a baax a baax ñu commencé rek si nga xamante ne mooy président Ousmane Sonko euh, concert de casserole bi nga xamante ne moom la def concert bi naka nga ko gisee ak aussi yan conséquences lan dara jula réew mi conseil de casserole bi man de tout d'abord dama naan abibatu man tëggu ma sama njaboot tëggul ku takk si man tëggu tëggul ku tëgg nag bu la neexee tëggul ndax ku la neex nga tëgg la neex mhm. ndax yaakaar naa dëkk bi moom liberté ko ñëpp am nañ liberté Mm. ku mu neex defal li la neex mm. ñi tëgg seen castorol xam naa dafa am lu tax ñuy tëgg seen castorol waaye mm. man tëgguma mm-hmm. fekkewu mu fu ñuy tëggee mm-hmm. dañoo nekk jamonoy nawet daal macha mm-hmm. allah ma waxaat man faraluma opposition faraluma gouvernement faraluma kenn man day ju seex laa na fi ma toll ci réew bi macha allah kon tëddee jaaxaanaay moo ma war waaye dañoo toll si jamonoy nawet tëgg ndënd tëgg tëgg ku nekk xam na nu mu mel bu nawet jotee sax macha allah dañuy tere sabar yeeg yooyu tëgg dafa bëri lu ci lu ci nekk daal ci biir yoo xam ne daal man daal sopp ma ko hmm? moo taxit comme damaa màndu hmm. du ma ci mën a sori daal hmm. man daal ku ma yilif maa yilif sama kër macha allah sama kenn du tëgg sama kër mais ko bi baaxul ah wax dëgg yàlla man kenn du tëgg moom ñëpp xam nañ ne jamonoy nawet bu jotee sax ñëpp dañuy tere tëgg ñuy tëgg nag ku mu neex defal lu la neex Sénégal dañ nekk mais ba tëgg yi du am benn problème ak si réew mi. ah man daa du ma ne baax na du ma ne bon na. Mhm. wax dëgg neex yàlla nax sax nawet batu dafa màndu. Mhm. du ma jël ay yëfi jàmbur du ci dugg ndax tooñ baaxul. dëgg la waaye man am naa droit ne tëggu ma samay njaboot tëgguñu. dëgg la. macha allah eh, macha allah soxna ay batu gay kaddu gi am na solo bu baax a baax ñu daal di jàll nag si dëgg-dëgg waxtaan bi si li nga si nga yëngu bu ñu soxna ay batu gay mën eh, la reine des voyantes koo xamante ne allah eh, képp koo xam da koy seetal da koy gis. soxna ay batu lan mooy secret bi ba koo seetal gis ko. rabbil alamin lépp damay sant suñu borom ndax yaa borom bi bu la mayee do tiitaru. Hmm. do fëgg dënd mana. ne dama nekk jàmb bu toroxlu jaam boo xam ne macha allah lépp dama koy sant daal secret bi du dara mën seet. Mhm. Euh, Moussa dëkk bi macha allah da mën naa ne bu fekkee dàquma fi seet tamit kenn dàquma seet. Hmm? ndax macha allah soxna Abibato ak seet. Mhm. dafa nekk histoire boo xam ne du histoire te histoire bu yàgg la. dëgg la ma judd fekk sama wàllu ndey di ko def macha allah mu doon doo ci man. Mhm. nee nañ ba loo xam ne dafa danga ko da nga fekk ko fi. Mhm. macha allah ba pare mu nekk don si yow nga mën ko xam di ngay def. Mhm. macha allah loolu la rek te bañ a tatone. Moussa toujours dama naan man xam nga lu ma gën a bañ si àdduna kuy tatone. dafa am te ñi ma ko sañ a wax dañuy yàq liggéey bi. ñi ma ko sañ a wax. lu bëri ñu nga xam ne ñu ngi koy def ci liggéey bi naka su noonu. lu ma gën a bañ si àdduna kuy sedd làmbaatu. baaxul seetkat waroo làmbaatu ay ku xees kee ku ñuul kii ak di laajte. Mhm. nit ki bu ñëwee si yow macha allah. Mhm. da nga ko wax la soxlawam. Mhm. bu ñëwee si yow da nga ko war a résoudre soxla mais pas di ko rayak ak ay question daal. dëgg la macha allah yàlla loolu mooy sama secret dama mën li may def dama xam li may def te dama ci yàgg. mu nekk don ci man. macha allah euh, macha allah soxna ay Bada Gaye mais nag euh, dañuy jàll rek si diggante biir seet bi parce que dégg naa. koo mm-hmm. euh, seetal ba pare da koy jox ay sarax. te mm-hmm. dégg naa yow say sarax moom 24 heures nga gis résultat soxna ay Bada loolu doy na waar de. waaw alhamdulilah rek. Mm-hmm. alhamdulilah rabbil alamin lépp dama koy delloowaat yàlla suñu borom njukkal. toujours dama naan yaa rabbi du tëj buntu. tëj palanteer wàcc ay rido. yàlla bu la xañee lii rek fekk la mu may la lee yaakaar naa képp koo xam soxna Abibatu xam ne man voyante tout simplement la soxna abi Abibatu ñaanul. dëgg la soxna nu munuma ñaan soxna mm-hmm. batu xaw ma nu may ñaanee. dëgg la Moussa loolu ni honnête la de. Mm-hmm. gëm sa bopp la. dëgg la ful ak fayda la. Mm-hmm. am na ñoo xam ne du ñu mën mais du ñu am honnête taxaw ne mënuñu. dëgg la man nag damay nekk doomu Lebu ko waalo waalo. lu ma mën laay def lu ma mënul du ma ko def. dëgg la yàlla li ma xañee ma mën see eh, kii lu mu koy waxee lu ma xañee ma mën ñaan. fay dama ko ci sarax. soxla boo mënti am macha allah boo seestee soxna abi bato hmm. bu la génnalee ay sarax say soxla aaj faju hmm? est-ce que xam nga ne nit ku sëy ati at amul doom hmm. ba yàlla bu naree tudd sa doom incha allah boo seet see soxna Abibatou bu la génnalee sarax di nga am doom. saraxu am doom. saraxu am doom bu ci yàlla àndee. est-ce que xam nga ne nit sëy na huit ans nit sëy dix ans nit sëy ay ati at. mu dem ba découragé. ñëpp ne ko yow mii sa am doom wóorul. tubaab yi wax ko ko ñëpp wax ko ko. mu seet soxna Abibatou. mu defal ko sarax yoo xam ne macha allah day jël ëmb. allahu akbar am na ñoo xam ne macha allah ñi nekk bitim réew bëgg këyit. ñu bëgg permis de conduire. macha allah bari na. ñuy ut liggéey. Mm-hmm. macha allah ku njabar jàpp ku liggéey jàpp ku cat jàpp. Mm-hmm. sarax mën na lépp. Mm-hmm. lépp la sarax man musaa ba pare nañ moytu sarax si. dëgg la toujours dama naan leen. wax waxaat du bëri wax de. dama bëgg kuy door a gis soxna Abibatu mu bàyyi si xel li may wax. ku soxna Abibatu ngay dégg ay waxam mu jottali ko. Mhm. ndax man intérêt peuple bi rek moo ma ñor. dëgg lu man intérêt Sénégal rek moo ma ñor. Mhm. man sama bopp ñoruma bu doon loolu la kon bu ma waxee benn yoon pare yi. dëgg la lu wér mais toujours damay répété moytu leen sarax yi. Mhm. Moussa da gis koo xam ne. dafa àddunaam bépp da ko génne ay sarax. ci yàlla te du gis benn résultat. xam nga loolu lan moo tax. lu koy tax lu koy waral sarax dafa am yoon. Mm. sarax war nga xam ki ngay sarax. sarax war nga xam bés bi nga war a sarax sarax war nga xam nax yow war nga tuur deret wala waroo tuur deret hmm. am na ñoo xam ne lépp si la bokk hmm. ak sa rawaan lan la bëgg hmm. da ngay gis ñoo xam ne ma détail ñu waroon am jafe-jafe ñu def sarax boo xam ne day xëcc jafe-jafe yi ñoo xam ne waroon nañoo am loo xam ne dañ ko war a am si lu baax ñu digal leen sarax yoo xam ne day dëpp seen wërsëg yaa ngi may dégg moytu leen sarax yi nu muy defaree noonu lay yàkkee bu ñu leen digal sarax rek ngeen def te xamoo leen lu ñu leen digal lan la. dafa am ñoo xam ne sama genre bu ñeme yàlla gi mhm. dañoo ñeme yàlla ba lu leen neex def. lu leen neex wax. Mhm. xooluñu seen tra yu bàmmeel xooluñu dara. Mhm. ñoom daal nañu xool seen intérêt rek ak seen intérêt poche. bañu xool nit ki lan moo koy lor. nañu moytu sarax yi. nañu moytu sarax yi buñ leen digalee sarax. nañ dem xool ji. wala balaa ñuy def sarax bi ñu xool mhm. sarax bi lan mooy conséquences yi lan nañ leen mën a apporter lu baax wala lu bon nañ moytu sarax si kon sarax daal am na solo bu baax dafa am solo day defar day yàq aussi la macha allah mhm. euh, macha allah soxna am na bu baax a baax a baax ñu mhm. ñëw rek sa digganteeg Modou Modou yeeg Fatou faat yi gis naa ne nag jàpp nañ la bu baax baax a baax parce que euh, mën naa ne yéen leen di dimbale aussi si wàllum seet ak si wàllum ñaan ba ñu si bëri macha allah ñi nga gis résultat lan moy sa secret yow ak Modou Modou wa sante yalla sama ak Modou Modou Fatou Fatou ma leen jëk japp xam nga aduna dañu né ko japp mu japp la Modou Modou macha allah bu di wax sama digënté ak ñom fi ba suba duma fi duggé mhm. dama and ak ñom ci sincérité and mhm. ak ñom ci doylu mhm. bëgg leen lool patu ñu bëgg ma modou modou yëpp partout monde dañ ma jaral lu ne modou man damay taxaw ne leen ko am ma défaral la sa sarax ko amul ma defaral la ko abal seetal la ko amul ma seetal la li may def bëggeew ci hmm. man du ma jiital alal alal du dara dangay ngay dee bàyyi fi man am nit ki moo ma gënal am xaalis hmm. du dëgg te nee na nit foo dem demaat fa demaat fi fekk na fi ngay dem leen nga fa mm-hmm. xam nga doo dem foo xam ne dara nekk fa macha allah toujours da nga fay continuer di dem maag Modou Modou dañoo ànd ànd ngor mm-hmm. ànd ànd jullit mm-hmm. ànd ànd diine ànd ànd lislaam loolu bëggante ñu bëgg ma ba bëgg leen loolu nag macha allah loolu moo tax mais du dara macha allah macha allah ba Abibatu Gaye kaddu gi am na solo bu baax a baax a baax. Mhm. ñu ñëw rek euh, si mbir bi nga xamante ne mën naa ne ma ñëw ak yow si wàllum papier ki nga xamante ne daa bëgg a yenn sarax nga koy jox ak ki nga xamante ne aussi daa bëgg samp parce que élection yaa ngi ñëw am na ñu bëri euh, bëgg nañ nekk si nguur gi. nu leen di dimbalee. Moussa yan sarax la bisimilah. sant yàlla nee naa la man dama meilleur ci sarax. man boo ma gisee xam ne man dama nekk nit ko honnête. nekkuma nit bu ñàkk fayda boo xam ne dañ may tiim caméra lu ma neex wax. dëgg la man ko xool sama xar xam kanam xam ne ne man lu ma wax dëgg la. Mhm. ku bëgg kayit ak kayit boo munti kayit boo munti ut. Mhm. segam neex na yàlla parce que lépp nag dañ koy jiital si loxo yàlla. dëgg la ndax yàlla moom mooy buum mooy buum bi. Mhm. mooy def ci lu ko neex. macha allah boo toogoon ay 15 ans tamit amoo këyit. soxna ak batu bu ma la génne génnelee sarax nga am kayit man naa hmm? wax loolu. gi maa wax loolu gay am na fi ñoo xam ne ñii a ngi États-Unis ñii a ngi Italie ñii a ngi partout dans le monde dañuy jékki-jékki seen këyit yi jeex duñ leen renouveler bu ñu ma seetsee mm-hmm. bu ñu ma seetal leen incha allah ñu génneel leen këyit mm-hmm. am ñoo xam ne tamit macha dañuy wër këyit mm-hmm. ay ati ati at Mm-hmm. fu nekk ñu dugg fa lu ne ñu def fa sëriñ bu ne ñu dem fa sarax bu nekk ñu def fa boo seet see soxna Abibatu la solution mm-hmm. macha allah bu ma la diggalee sarax mm-hmm. du mat juróom-ñetti fan wala du yàgg dara bu fekkee ànd nag ndogalu yàlla li nga bëgg di ko ut bu ànd ak ndogalu yàlla laa wax li nga xamante ne ñu fii si mi bëggam visa dem tukki. noonu la di dimbalee. xanaa defal leen ay sarax. nee naa leen soxna Abibatu ñaanul man sama lépp sarax la Moussa. dëgg la da lépp dama lay mhm. seetal. Mhm. bu ma la seetalee ba xam yow fii laa war a awante ak yow. Mhm. bu soobee yàlla ak yonent bi bu neexee yàlla li nga bëgg di nga ko am. am na ñoo xam ne dañuy dem ambassade ju leen di rejeté. dem nañ façon am fu nekk dem nañ fa fu nekk lambootu nañ fa dañuy rejeté rejeté ba ñu découragé. mais boo seet see soxna Abibatu bu ma la génnelee sarax booy am visa da lay bett. Hmm? macha allah. booy ak yeneen ak yeneen. Mhm. mais nag ma ñëw ak nag. Mhm. si wàllum samp. Mhm. samp ku bëgg jël pouvoir bi. wala koo xamante ne bëgg na nekk ministre wala député wala président wala sax bëgg dugg si entreprise yi toog fa. bu ñuy si waa sant yàlla. da gis ñoo xam ne macha allah dañuy nekk ci ay entreprise ñu bëgg ñu nama leen fa dara mu jafe leen trop. waaye soxna Abibatu defal leen sarax yoo xam ne macha allah lépp day yomb si ñoom. soxna Abibatu da koo xam ne dañ koy xeex. nit koo xam ne fu muy liggéeyee dañ ko sonal. Mhm. lu nekk dañ koy def macha allah ma defal la sarax boo xam ne ñëpp lay boole bëgg. Hmm? macha allah ku bugg samp yàlla rek ay samp nag yàlla rek kay fal. waaye soxna Abibatou am na sarax yoo xam ne bu dee xëccoo rek la. Hmm. ak bu dee jël pee rek la yàlla bu ma la ko defaree lépp li nga yootu di nga si jot bu neexee yàlla. Hmm? même bu dee pouvoir réew mi neex borom bi. lu waay di bëgg boo ñëwee seeti soxna abi bato bu ma la diggalee ay sarax di nga am résultat bac yek ki machallah ak BFM yi amna ci pourcentage yu bax machallah allah xa xale bari bëri am nañ te ci sarax rek la ko tek machallah hmm amna solo bu bax bax euh machallah soxna ay batou gay kàddu gi amna solo bu bax bax bax ñëw nak xana nak soxna ay batou nak ay karangé wala ubbeeku xanaa loolu mënoo mëno si am sarax xanaa déggoo li mëna wax ne naa la man dama généraliser lépp. Hmm? soxna Abibatu lu waay bëgg. Hmm, kon sarax mën nañu ci lépp yow déggoo li ma la wax luy fank bay fank dee bu ñaaw. xam nga ne sarax mën na lu ne. nga dëgg. sarax mën na lu ne sarax bu jaaree yoon. Hmm. nga xam kii sarax li ngay saraxe lan la. xam kii lu rawaanam bëgg. xam lu mu war a def sarax mën na lu ne. muy mm-hmm. kaaraange am na sarax yoo xam ne nit ki bés bu la liggéeyee wala def la lenn wallahi dara du si jàpp wala waxuma këpp ci kawam sax na jullit lañu. Mm-hmm. wala dina dina daj loo xam ne lu mburu doon daj ci taalam. nga dëgg. lépp ci sarax. Hmm? maa la wax lii. allahu akbar. lépp ci sarax man maay la solution. macha allah macha allah. Mhm. Euh, macha allah soxna Abibatou Gaye kaddu gi am na solo bu baax a baax a baax. Mhm. daanaka nag waxtu bi nag léegi mu jeex nag mais bëgg naa tuuti rek ñu waxaat si tuuti si actualité rek avenir réew mi. Mhm. Euh, xam naa ne yow moom porte de voix nga aussi lépp loo xam da nga wax Sénégal yi lay déglu bu baax a baax a baax. ñu gis nag élection yi 2024 dina xaw a jafe. dina xaw a métti. Mhm. Euh, maa ngi dégg nag sa mbokk sëriñ yu bëri ñu ngi génn naan deret dina bëri. Mhm. Euh, ñii naan ay président 2024 bi diw la ak diw la. Mhm. ñu gis aussi Sonko euh, mu mel ni bokkul xaw ma na dina bokk wala mi ngi mel na daal situation am fu mu nekk nii wóoragul. Macky Sall aussi nee na bokkul day am ku muy teg nga yaakaar ni président 2024 kan moo ko nar a jël. président 2024 ki ko war a jël yàlla xam na ko ba pare. Hmm, am na ñoo xam na ñoo sama xel dal na su ñoom. du ma ne cent pour cent mhm. mais am na ñoo xam ne am naa njortu rafet si ñoom macha allah ku leen tegal ku leen teg ci réew bi ñu jiite ko mhm. ci seen la si seen fayda si seen dignité si seen engagement président Macky Sall tamit lu mu def dama koy félicité mhm. parce que dafa def benn acte bu noble Moussa ku nekk xam na ne nguur dafa neex mais lu nguur neex yëpp yëpp yëpp yëpp si la teg lépp ci ginnaaw pour sàmm kàddoom Macky Sall dafa nekk président Macky Sall ku am dignité la ku am fulla la ku am fayda la man yàgg naa leen ko wax. yàgg naa leen man Macky Sall mii dama ko doon toog di ko wax sama waa njaboot yi. ma ne gaaw ma leen ñu def euh, troisième mandat parce que dafa honnête. boo ko gisee macha allah waxam sax bariwul. Mm-hmm. nee naa leen man faralu ma Macky Sall de. Mm-hmm. faralu ma tamit opposition mais lu mu def nii wane na ne dafa bëgg Sénégal. lu mu def nii na réewam rek a ko ñor. Mm-hmm. lu mu def nii wane na ne moom jiitalul intérêt personnel am. intérêt personnel am. lu mu def nii dafa bëgg réewam bëgg réewam dafay préféré mom bu xagn bopam sax mhm. pour bandexu rewam mang ñu ko ci sant di ko ci gërëm waaw te yalla ku mu nam ne yaay doon président di nga doon président mhm. Ousmane Sonko mu bok ko mu baña bok lepp ci loxo yalla la mhm. bu yalla tuddee ne day bok day bok kenn mu ci dara bu yalla tuddee ne du bok timi du bok kenn mu ci dara kon ku gën ci rew mi yalla na la fi yalla tek ku gën ku gën ci suñu jeunesse bi yalla na ko fi yalla tek ku gën ci suñu wajur yi yalla na fi yalla tek ku gën ci Sénégal ndax boy ñaan tamit da ngay ñaan yàlla ku gën doo ñaan yàlla koo xam ne tamit bu ñëwee daf ñu yokk coono waaye da ngay ñaan koo xam ne bu ñëwee day gën ci Sénégal ñëpp jeunesse yeeg ñëpp mhm. yàlla na fi yàlla def jàmm macha allah mhm. euh, macha allah si jàmm mhm. macha allah euh, macha allah soxna Batou Gueye kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax képp koo xamante bëgg nga ku la seetal wala nga am ay tegtal yoo xamante si wàllum sarax tegtal yu solo incha boo woote si numéro yooyu suuf baaru écran bi bu ngeen suñu mbokk internet la doon seetaan. waaw macha allah alhamdulilah rabbil alamin émission bi dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim ñu ngi ciy fas yéene génn si alhamdulilah rabbil alamin maa ngi santati samay waajur góor jigéen. di santati sama borom kër macha allah comme ni ma koy defee. kilifa diine kilifa aada suñu mbokk katoliti yi macha allah. maa ngi leen di sargal. di ñaan Sénégal yal na fi jàmm sax. ci barke Seydina Muhammad rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla defal mbégte yàlla jàppale ñu sàmm ñu sàmm mboolam jullit incha allah may ñu ndam ci seen suñu Sénégal yi musibaak balaa yëpp yàlla na fi jugee te suñu doom yi des si ndox bi ñu ngi leen di ñaanal yàlla xaral leen àjjana mhm, ci barke Seydina Muhammad mhm. di di jaale seen yaay yi di bokk ak mhm. ñoom mettit bi xam nañ ne metti na xale yi bëgg teral seen yaay ak seen papa rek moo leen yóbbee lii macha allah waaye maa ngi bokk ak seen waajur yi mettit bi di leen massawu bu baax a baax a baax a baax maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp soppeey bu waxtaan bi lu si jaar yoon rek xamal ne yàlla suñu boroom la mhm. lu si teggi niwul maa ngi leen di jéggalu mhm. xam na nit rek laa nit matul mhm. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba beneen